toog loolu moo jaadu de ah ma jox leen leen ay séen bu ñu koy waxee toog parce que toog mu mënul ñàkk ala ku ne. dinañ laal tuuti ci histoire ndaxte lii. buñ baree foofu noonu. lii. combien de temps compteur ko xalaat mais am na ñoo xam bu ngeen ko dimbalewul du dem de tey. donc il faut ngeen. non xaw a dama respecté trop. après nag dafay. ba nga entraîné woon di ONU. léegi kii bu paree directeur régional. vingt six énergie. ba ma war a yu a kii fii quoi. mais yow as yi concerne yaa ma gën a xam quoi ay ministres yi. waaye ñu nuyu la ministre des sports. dalal la yow yaay dalal. c'est pas le maire. Ousmane Ndiaye. c'est pas le président du club. mais yow yaay dalal la te yow la yàlla jox. ñu bàyyi la ko tuuti. wàllu sport président de la République yore parce que li ñuy wax c'est pas ndaw la rek. dañuy commencé rek daal di commencé. béykat yi pour dalal xel. gàll waxal ma béykat rek mu gaaw. fii non man salutation laay def wax wax li waral bis bi après ñu ko. mais xaaral yow kay taxaw si d' accord bi wàcc ci liggéey. fekk ko ci zéro. yóbbu ko bu première division. bokk ci équipe yi nga xam ne moom la ñuy ci réew mi ñaari tay président monsieur le ministre xanaa xale yi déglu nañu xam nañu Pape Moussa Soumaré xanaa xale yi xam nañu Mbaye Lane xanaa xale yi xam nañu Chebane Fou di su ma paree lu tax lu tax day wax wala ñu xam yore ñoom après dawalal après dawalal ni nga wax Ousmane Ndiaye ah mooy moom mooy fii ministre léegi dinaa la ko sama xel dem ci Idi sama xel dem ci luy kii sama xel dem nañ ci lu bari ñoo xamante ni ñu jaar nañ fii lii danaa yow dafa yëg lii waaw monsieur le maire am na lu métti waaye toog nga say ko li madame le maire bu Dakar ñu lay nuyu day nit ku yàlla baaxal liggéey ci dëkk bi ndax day nag ki nga xamante ni Gracias. je tiens à remercier le maire et les membres du conseil municipal de Biscuiterie. Grand merci également à Vinci, Énergie Sénégal. Nous associons à ces remerciements l'ensemble des collaborateurs de Salange, le maître d'œuvre. Grand merci enfin à M. Mamadou Kassé qui, dès sa nomination, n'a ménagé aucun affaire, afin de concrétiser le vœu de son Excellence le Président Maxal. Mention spéciale à M. de Buté, directeur général de la, de Sénélec, qui, avec l'énergie de tous les possibles, a réussi en imitant la prouesse de nous connecter au réseau des clubs les plus modernes en partant du néant. Nous profitons de l'occasion pour vous rappeler, monsieur le directeur général, que nous sommes dans les arrêts de jeu. Il ne reste plus que le soutien financier et matériel à MGB dans le cadre de votre responsabilité sociale environnementale conformément au protocole d'accord. Monsieur, en ce début du mois d'avril 2011-2021, je vais vous raconter une petite histoire, celle du terrain Maracana, le terrain d'entraînement des MGB. Au bout d'envoi, il y a une quarantaine d'années, ce terrain était destiné à l'équipe commune, premier club sportif de Niar Italie. Puis très vite, l'ASC Niar Italie a vu le jour. Ainsi, petits pont qui au se sont alternés à un rythme effréné. C'était l'un des seuls terrains des environs. Il était donc très sollicité. Il a même abrité beaucoup de tournants de foot. Des événements ô combien fédérateurs y ont drainé un public en nombre. D'autant plus qu'autour de lui, c'était les membres des équipes qui l'entretenaient et y opposaient les lits au charbon de bois. Cela a bien changé. Les anciens s'en souviendront. Maintenant, ce terrain avait besoin d'un nouveau souffle. Alors, nous avons entamé une première mi-temps de chantier en déménageant des occupants permanents et occasionnels, tous ces échanges de ballons ont généré un véritable ensemble cohérent. C'est pour cela qu'en deuxième mi-temps, nous avons restructuré une partie du terrain en partenariat avec la Sénélec, ce qui a donné naissance à la centrale qui est juste devant nous, en contrepartie du financement de ce joyau. Et puis, grâce à Vinci Énergie, nous avons réflexionné la mosquée favorisant ainsi le dialogue entre le temporel et le spirituel. Avant la mosquée, nous avons entamé la deuxième mi-temps en beauté, puisque nous avons entrepris un doublé en, transformant ce terrain vague Bayal en terrain synthétique de dernière génération. Maracana fermera ce jour ses portes et ce nouveau joyau accueillera les joueurs de NGB et tous les férus de foot ici et d'ailleurs. Et puis j'ose dire, c'est presque un coup de chapeau pour cette fin de match. D'ailleurs, pour cet équipement, on a sorti un carton qui n'est ni jaune ni rouge, mes vert, pour remercier et rendre hommage à des hommes et femmes qui ont sué sang et eau pour que l'impossible, l'imaginable devienne réalité. Je veux citer parmi ceux-ci un homme qui, des bancs de classe de son école primaire jusqu'au perron de l'Élysée, a pensé par les couloirs, couloirs de la Direction générale des impôts et des mondes, le bureau du ministère de l'économie et des finances, la salle des conseils des ministres, je veux citer Monsieur le ministre d'État, monsieur le ministre, on vous dit merci. mesdames et messieurs les maires et députés, monsieur le sous-préfet, monsieur le directeur général de Sénélec, monsieur le directeur, mesdames, mesdames et messieurs les présidents, mesdames et messieurs, c'est avec une immense joie que je représente le personnel de Vinci Énergie Sénégal à cette belle cérémonie d'inauguration du terrain de foot de Niaritali. Mesdames et messieurs, nous avons été honorés de participer dans l'aménagement de ce terrain. Cette participation s'inscrit dans l'engagement citoyen et dans les valeurs humaines de solidarité et de responsabilité de Vinci Énergie Sénégal. Le respect de ces valeurs assure à Vinci Énergie sa pérennité au-delà du simple fait économique. Profondément incarné par les hommes et femmes de notre entreprise, ces valeurs nourrissent la culture des services et le modèle de management de notre entreprise. L'ambition de Vinci Énergie Sénégal est d'être un partenaire durable des communautés locales. En plus des actions menées auprès des communautés et des écoles se trouvant à proximité des, chantiers de Vinci Énergie, elle participe aujourd'hui pour inaugurer ce terrain de foot que nous espérons permettra au talent des joueurs de mieux s'exprimer et de réaliser des belles performances et de réussites sportives. Je finis mes propos par une des valeurs que nous avons l'habitude de penser chez Vince Énergie Sénégal. Les plus belles réussites sont celles qu'on partage. Je vous remercie de votre attention. Merci. Merci beaucoup à monsieur. Merci. De manière définitive. Donc c'est avec vraiment beaucoup de plaisir et beaucoup d'émotion que je prends la parole. Euh, la responsabilité de développer le football passe par des après-midi comme cet après-midi. Et c'est avec euh, beaucoup de joie que nous félicitons le président Mohamed Gibrilouak pour toute sa qualité mais également sa capacité d'initiative pour permettre à la jeunesse de Dakar, mais principalement à la jeunesse de Grand Dakar Niaritali, d'avoir un écran de cette qualité. Et je pense que, comme l'a dit tout à l'heure Beka beaucoup de footballeurs sont sortis de ce terrain, mais à partir d'aujourd'hui, Dibiwad a mis le palier à un autre niveau

gaa yi nee nañu baax mbooloo mi. salaamaaleykum mbooloo mi. Euh, dañ ma jox parole pour ma def discours. ma gis ne bi mu fi toogee ba léegi. day am ñuy def discours ci nasaraan am ñuy def wolof. comme man nag binduma dara dama taamu nag. wolof bi. te am naa yaakaar du fi yàgg du fi yàq. damay door di nuyu suñu kilifa yëpp yifi euh, top di la ñaan ñu jéggal ma parce que suma commencé lim dañ fiy gën a guddi mais sama kilifa dinañ ma bàyyi ma beral ko nuyu muy ministre euh, Mataba mom mi nga xamne moy sama kilifa fii boole ak mom yeneen ministre yi fi nekk yépp sama domi nday Ablaye Sow ministre Amadou Ba

ak farlu ci li jëm ci li nga xam ne moo jëm ci euh, quartier jeunesse ci quartier hmm. bi ji bi ku ko xam a ah, xam ne àddunaam yëpp depuis nawetaan la muy nekk ci ginnaaw tuuti tànk yi ba tey fi mu toll am ay nombal tànk ci football bi hmm. ak ci li nga xam ne li gën a am solo tey ci réew euh, ci sama gis-gis parce que man tam ci loolu laa yëngatu muy lan nekk euh, ndaw réew mi ci gox goxaan donc jibi tey fi mu toog Qui fan la yëpp ko mérité donc vraiment je bëggoon ko rendre un hommage particulier ici devant tout le monde Ce que ko fait, defal naa ko aussi ñaari tali defal naa ko ñëpp ñi nga xam ne ñooy cheminer ak moom depuis des années ba ñaari tali tey nekkoon référence dans le mouvement associatif bi nga xam ne moom wax euh, mouvement populaire nawetaan ba tey mu nekk référence aussi dans le football sénégalais Tu may terminé aussi Moi, wax naa sànq gazon bi ci bii dafa wane yoon pour dirigeant yëpp tey li ñu war a def c'est vrai ñu ngi chaque jour am ndimbalu état am ndimbalu commune yi euh, état mu ngi def lu mu mën see infrastructure mu ngi jàppale suñu équipe nationale yi mairie yi itam ci ñi ko mën ak ñi ko farloo ñu ngi koy def gis nañu démb ville bi jàppale aussi euh, un club qui un club africain mu nekk yoon boo xam ne tam bëgg naa commune yëpp gën si dugg mairie Dakar tam gën a def mais ñu ngi rafet li ñuy def mais comme li ñuy wax ndimbal na ca fekk loxoy borom. te tey waa NGB ñaari tali loolu la ñu def mooy lan ñu ngi continuer di ñaan suñu kilifa yi ñu jàppale mais ñu wane yoon defar terrain boo xam ne terrain bu mujj ayib la ku xool sànq président Ousmane Ndiaye li mu lim ci jaar-jaar ci terrain bi CRC complété ko ba tey mu nekk gazon synthétique wane na. fépp foo xam ne dirigeant club yi foofu la war a jaar pour mën a mëttal li nga xam ne mooy suñu wareef ak li nga xam ne mooy askan wi tuuti tànk yi nga xam ne lii rek la ñu soxla may terminer rek di wax ne ñun nag sam suñu wàlla fédération bi dañu am ngërëm bu ñuy jëmale ci ñaari tali parce que bu ñu ko defee ñun lañ ko defal parce que sànq déglu naa bu baax discours bi xëy na ñaari tali dina ko jëriñoo mais yeneen équipe yi Dakar nañ ko jëriñoo may profiter aussi di wax ne ñu ngi rafetlu en tant que fédération liggéey bi nga xam ne autorités yi ñu ngi koy def mais club yi ak euh, maanaam privé yi di gën a yokk ay ay terrain de dernière génération fii si Dakar parce que xam nañ ne Dakar côté boobu dafa sooxe woon torop torop may gërëm ñëpp di leen wax aussi que li def ñuy gën a dooleel di leen wax aussi que daf ñuy gën a motiver pour que ci jamono yi ñu jëm ñu gën a farlu pour songal li nga xam ne tamit chef de l'État dëng dëkk nuñ ko te mu nekk pàcc bu am solo ci histoire yu NGB xam nañ ko bu ngeen amee terrain bu jekk nii il faut ñu defar Demba Diop mu mën sëkk comme ça ñaari tali fu mu nekkoon ay at yële ñu génn mu delluwaat fa te loolu fédération na ko engagé dinañ def pàcc laay kàttanam pour mériter confiance président mais aussi mëttali liggéey dirigeant ñaari tali ma leen di gërëm di leen sant. jërëjëf ah. def naa ne kaddu yi. nga xam ne moo xëyee ci Augustin addina yëpp Abdoulaye Ngoye Dias Amadou Ba wakk mi ci Samba Diène ko Abdoulaye Ngoye Dias Dias mi ak ngi di nuyu président Jibril Wade daf mo wara a décompter temps mort yi parce que 90 minutes nga waxoon et je vous ai déjà pris beaucoup de temps may nuyu ñi fi nek ñep monsieur le ministre Makhtar Ba di sama xarit di sama coloré tout comme le ministre Ablaye Sow waxuma nak pour diplomatie le protocole la wax yalla mën nako cédé ñom xam ko Madame le maire de la ville de Dakar Monsieur le maire président de NGB na ñëwaat ci yow Monsieur wad tu es un digne fils de ñaari Tali. Moi, un homme sérieux courtois mais surtout engagé et déterminé c'est un témoignage que je fais j'ai grandi dans ce quartier tout comme toi donc maintenant c'est caméra caméra directeur général Sénélec di président fédération de football bien sûr ñu ngi toog ak sama grand frère nu wax na fi léegi may beral nuyu grand frère Sayer Seck suñuy relation yàgg na yàgg nañu ko seetaan ci terrain bi dinaa ñëwaat ci histoire terrain bi tuuti may nuyu sama papa El Hadj Mansour Mbaye ñi ngeen fi gis ñu taxaw léegi. ñi ngeen ñoom ñëpp laa wax samay jur lañu samay yaay lañu samay tànt lañu ndax yàlla dafa def ñoom ñëpp ñaari Tali lañ dëkk ñii ma màgg seen kanam ñii ñu màggandoo kon ñoom xam nañu histoire ñaari yi mais aussi xamante nañu bu baax may nuyu personnalité yi fi nekk yëpp. ñi fi nekk ñëpp maa ngi leen di nuyu jàpp moon damay def discours franchement ñëw moo fi woon pour wax invitation bi sax j'ai beaucoup hésité pour ñëw ndax yàlla daf ma nattu may fonctionnaire donc ci ndigal rek lay dox surtout nag bu la santé foo xam ni li wolof di wax parce que terrain bi sont nañ fi ñom le grand gardien de but yalla nako yalla yeureum fi cheval fou y a yalla na leen aussi aussi Koulibaly mu théoriser le football professionnel

ñi mag Grand Dakar parce que bu ma nee Grand Dakar fii ci la bokk ci biir plan yi fii mooy Grand Dakar 6 c'est après lañ ko tuddee ñaari tali bi communalisation bi ñëwee ñu def ay division mais fii mooy Grand Dakar 6 ñun ñëpp ñu mag ci terrain bi boobu direction générale SICAP nekku fi bi SICAP tabaxee laata muy tabax andi woon na coow ci biir Grand Dakar ci jamono jooju parce que bii rek moo fi doon terrain de football bu ñu amoon fii bi ci des mi ngi woon fële ñu doon ko tuddee terrain sportif mi ngi biir Grand Dakar terrain Reims bi tabaxee ba pare mu amoon ay velléité ca jamono jooju pour def ci terrain bi ay projet soit ay dëkkuwaay wala ay immeuble wala barab yi ñuy liggéeyee may wax ci contrôle président Doudouat ma di ko nuyu ndax la may wax daf ko fekkee te daf ci dox c'est aussi le moment de vous rendre hommage président bi fi nekkoon di président Ablaye Wade nous voyons Bobo, boobu directeur général des impôts et des domaines ñu terrain Guinée, ginnaaw bi mu laajee histoire bi fekk moo gënoon xam histoire bi parce que président Wade est miinoon ñaari tali la bi ne terrain bi bu ci kenn def nous avons engagé procédure pour sécuriser nous sommes ci ak président Djibril Wade yalla dogalul par contre sécuriser nos terrains, terrain ne serait-ce que sur le plan technique ba nga que ni mënu ci projet. def projet àddina di président Macky Sall en 2017.

loolu président Macky Sall defal na ko waa ñaari tali mun ko seede mais en plus de sa terrain nee na Makhtar Ba dama koy seedeel aussi dama bëgg terrain ngelaw waa ñaari tali xam nañ li may wax terrain ngelaw terrain wu Padois hmm. terrain wu Castor dama bëgg ñu sécuriser ko pour xale yi Ndakaaru la nga xamni moy mooy juntu i mo xam sport la wala fu ñu war a ñu bañ ci def leneen lolu xamna ni Makhtar Ba dina ci ñëwaat légui pour woné engagement ak détermination président Macky Sall pour que lepp lo xamni dafa jëm ci xalé yi lepp lo xamni dafa jëm ci jeunesse bi ñu sam ko ci sam bi gëna rafet.

à mon ay velléité mais le président Djibril Wade ak ñi mu andal, réglé nañ ko kon président maa ngi lay pour li nga defal ñaari tali lu ñu waroon la mais sa engagement cette détermination tax na ba li un club ASC dem na ba club professionnel dem na ba ko ci championnat même si aujourd'hui on a quelques difficultés mais loolu loi au sport la mais la nga xam ni mën wax talent yi fi le ak kàttan gi fi nekk ak engagement bi nga xam ni ni président am na ko le ko ci Dakar bu ñun ñëpp bu ñu président Djibril Wade je suis sûr dama faral nag ñaar grand ak ñaari que xëy na déwén incha Italie, ñaari tali dina place bi nga xam ne amoon Je ko te liñ fi gis tey ñu ciy félicité parce que c'est ce qu'on demande à nos entreprises état mënul defandoo lépp ku leen ne lépp dina xëy sotti mënuta a nekk nous avons une population jeune mais attention attention lay Sénégal mooy yeneen réew yi ñu wër lay Sénégal mooy yeneen réew yi ñu wër waaw may leen ñu asibo yi ndax ci discours la ñu ne mais on a un devoir de témoignage. la nga xam ni xam nañ ko te mu la nga xamni mengo nak état président defal ko jeunesse bi. amul benen rew ci yi dendal bu ko defal jeunesse maintenant nous ñi nga xam ni ñun intermédiaire entre président ak population yi ku ci axa sa taxawaay ak sa doxalin ko ko def sa audit personnel ba xol ndax la nga xamni denk wala la nga xamni meus nañ la ko denk def nga ko ci na mu waree ca naka ki la ko dénk ni ko bëggee woon cela me semble être extrêmement important pour ñu safara la nga xamni amna ci biir Sénégal lolu la bëggoon sanni ci wax ji may remercier wa Grand Dakar yépp di leen féliciter et vous dire que je suis très touché et très content de

monsieur le maire nee dañoo namoon xew nag moo tax moom yaakaar ne looloo tax day fii li fekk mu xumb lool monsieur le ministre Matar Ba ministre des monsieur le ministre Abdoulaye Sow ministre de l'urbanisme maître Senghor maire de Gorée adjoint spécial au maire de Dakar, président de la Fédération sénégalaise de football, vice-président de la CAF. Félicitations encore, Félicitations. Nous sommes fiers de vous. Président Sayasek, président de la Ligue de football professionnel. Doyen Doudouad, figure emblématique de Grand Dakar, je vous rends hommage, je vous salue. Je vous salue respectueusement. au Grand Dakar c'est le jigéen moo leen di nuyu. refaire rafetlu c'est cette mobilisation. lii xew fii Je dañ koy rafetlu bu baax. Je ko l'eau parce qu'il a ay infrastructure

monsieur le ministre Amadou Ba maa ngi lay nuyu bu baax maa ngi lay sargal maa ngi fàttaliku ne ànd nañoo ak yow ci liggéey yu bari ci mairie Dakar kon jërëjëf monsieur le ministre Amadou Ba ñi ma ko waxee nag jigéenu Grand Dakar maa ngi leen di sargalaat ndax xam ngeen ne weer bii ñu nekk weeru jigéen ñi la kon maa ngi leen di sargal di leen di souhaiter bonne fête mois de mars yépp jigéen ñi ñoo ko moom terrain bii ñu def dama ne encore kontaan nañ ci ndax gis naa nag engagement maire commune yëpp fan yii ci gannaaw inauguré nañ lu mel nii du moins pose de première pierre def nañ ko ci commune Guet-Ndar Derklé rek yeneen maire yi yëpp koo ci gis mi ngi fexe nu mu defaree terrain ci biir commune am kon nak, monsieur le président de MGB je lay féliciter di la encourager di remercier particulièrement son excellence le président de la république bi la may terrain bi di aussi sa partenaire yi nga xam ne mooy Sénélec ak Vichy énergie ñi nga xam ne jàpp nañ ci terrain bi defar ko ba mu mel nii di wax rek nag à la jeunesse sportive terrain bi seen terrain la na ngeen góorgóorlu bu baax sàmm ko toppatoo ko ndax nag alal bu bari lañ ci def yéen xale yi ngeen xam ne yéen lañ ko defaral na ngeen xam ne lii yéen a ko moom na ngeen ko sàmm defar ko nettoyé ko nga xam ne wax dëgg yàlla du gaaw a yàqu kon daal guddi na te yeneen ñaa ngi taxaw bëgg a wax mais balaa may daaneel nag may nuyu bu baax le doyen Mansour Mbaye Mansour Mbaye suñu papa maa ngi lay nuyu bu baax maa ngi lay nuyu di la sant di la gërëm événement bu nekk wax dëgg yàlla boo ñëwee nit ñi xam ne ñëw nañ parce que da nga fa wax wax bu rafet da nga fa da wax wax joo xam ne dana delloo si jàmm dana tax nit ñi ñëpp ànd bokk ndey ak baay kon jërëjëf yàlla nga yàgg ci suñu kanam jërëjëf merci. maa ngi am mbégte ak contentement. ci taxaw fii ndax ki xam ni moo woote ki woote maay baayam Jibril Wade mu Adama Wade Dudu Wade mu Adama Wade ñooñu maay seen baay seen baay transitaire espoir seen baay transiteur sunu si seen baay taalibe Alaaji Mansour Cheikhul Xawmi seen baay di président ba ma président de tous les sénégalais di maître Abdoulaye Wade kon Jibril maa ngi lay nuyu bu baax a baax di nuyu nag surtout tafsir ba ma joxu Alaaji Abdoulaye nit ba la ngeen koy fal laajte leen ko représentant du chef de l'État Maxtar kenn du la à travers le Sénégal ba sa xarit ak lay nuyu sa soppe Hadj Mansour Abdoulaye Sow fa Djibril Wade nekkoon foofa boobu coopérative la Djibril Wade am ak ku ñuy wax Masloo ca dëkk bu mag ba Kaffrine yow la chef de l'État jox confiance kon monsieur le ministre maa ngi lay nuyu ak di la sargal sow ak la ñaanal yàlla di nuyu ki xam ni bu nu taxawee fii tey moom la lu tax muy moom métier bi xam ni jamono te doon na ko def ca ñëpp dajaloo def benn projet nu ko train bii la nu bëgg nu jox ko usine ñaari tali homme, kan mooy sama dom sama xarit l'ancien ministre de France, la ministre des affaires étrangères le responsable des la Amadou Mon ci mo jox jox le président de l'espoir jox le gardien de la constitution le ko de l'État mu Amadou جل العرقة جحت بابو إسخن إسخن نهاري تالي جل إسخن نهاري تالي أبي ترهبي كون عامدو مرسي أنكور مرسي أنكور مرسي أنكور جنيه بيبا ها كي خمدنا مويكم طالب الشيخ الإسلام مويكم مويكي خمني كورا الكوبيتم mooy kan mooy ki xam ni chef de l'État ko jox confiance mooy ki xam ni lu mu wax def ko ëpp na député yi maa ngi lay nuyu ak di la sargal déggal sama sang nee na. 95 pour cent des sénégalais 95 pour cent des sénégalais am nañu courant bi tey maa ngi lay nuyu bu baax ah mbooloo mi déglu leen ma nag ki ma bëgg nuyu nag maa ngi koy wax nii. Augustin président fédération Makhtar Ba ministre des sports xam nga lu ñu bëgg waaye Coupe d'Afrique na la ñu soxla Augustine Makhtar Ba Coupe d'Afrique le Sénégal soxla yéen ñaar yéen responsable seetaan leen équipe bi seetaan entraîneur bi pour ñu am d'Afrique madame la maire m'a remplacé Lamine Gueye madame la maire m'a remplacé Boubacar Ndoye madame la maire m'a remplacé Khalifa Sall maa ngi lay nuyu bu trésorier général Dounouad, Sado, Sabay, do sa baay sa xarit sa soppe frère Mansour bu réew mi yegsee fii sa baay def na ci ba kenn neewul way moo ni way ànd ak maître Abdoulaye Wade ak Idrissa kon Badara Gadiaga lépp def loolu war na la Jabilatu maa koñ ba nga dëkk paasu màkk jot nañu waaye di nuyu nag communicateur nen nit ne na ngi ana nen ba mooy Amadou Ba Amadou Ba juudu taxaw gannaaw yàlla ak yorant ba yaa tax nu am ko kon war nu la wax merci bi ci des Maxtaar boo demee ni chef de l'État ni ko usine ñaari tali la jeunesse est avec lui ko équipe bi fi ne est avec ko les femmes sont avec lui les soit avec lui le gardien de la caution, le président Max Sall. Merci. Masur ya karena ne Senegal jamrek laham Senegal jamrek fakih Lirek, moi, mooy Sénégal jërëjëf. Monsieur le ministre des Sports, mon cher frère Matarba, Monsieur le ministre de l'Urbanisme, mon cher Abdoulaye Sow,

suñu marraine comme nuñ ko daan ooyee moy ndey sali job Dieng bi nga xam ñun ñi ñëpp bu ñu daan jàngi école mom mo daan ñëw di ñuy jox suñuy bourse kon madame Dieng ñu lay nuyu di la jox sa waccu way madame le maire monsieur le préfet ñu lay nuyu madame la maire nous ngi lay de la jox sa monsieur le président Doudouad, nous ñu ngi de nuyu la Sainte, lirak rek Sénégal fu sénégalais gis lu baax taxaw fekkee wax ci def Sénégal rek monsieur le maire de la commune de Biscuiterie et président de NGB nous nous lay nuyu Grum, la le monsieur le président de la fédération sénégalaise de football mon cher Augustin félicitations merci pour la persévérance Inch'Allah on entendra d'ici peu président de la CAF vous le méritez monsieur le président de la Ligue pro de football Monsieur Sec, merci. Monsieur le Président de la Ligue amateur, Monsieur le Secrétaire général de Sénélec, Mesdames, Messieurs les membres du comité de direction, Monsieur les communicateurs traditionnels, nous jël Mansour le message qu'on voulait passer Sénélec est une société nationale, donc un patrimoine national. Elle appartient aux Sénégalaises et aux Sénégalais. Elle est gérée par les Sénégalaises et les Sénégalais, pour les Sénégalaises et pour les Sénégalais. Et c'est pour ces, toutes ces raisons que Sénélec n'est pas seulement une entreprise classique amenée à exécuter une politique de responsabilité sociétale d'entreprise elle a d'abord et avant tout une sensibilité sociétale d'entreprise. La conjugaison de sa responsabilité et de sa sensibilité sociale justifie la cérémonie qui nous réunit cet après-midi avec l'inauguration de ce terrain de football au bénéfice de l'équipe de NGB, donc au bénéfice de la jeunesse de Niar-Italie, Grand Dakar et Biscuiterie mais au bénéfice tout simplement de la jeunesse de Dakar. Monsieur le maire, le président de commune, Yakar était était joyeux, bientôt le Sénégal di accueillir Coupe d'Afrique Il na a un terrain d'entraînement homologué parce que toutes les normes FIFA ont été respectées et ça vous le méritez ça la jeunesse de Nyaritali, Grand Dakar Biscuiterie mérite ça donc

un président qui écoute les jeunes un président qui a entendu les jeunes et yakarna ne lii wax rek wax du a buñ koy taxawal sous sa vision éclairée li buñ koy xalat ba koy taxaw di def li amu fi kon ñu ne li moy Sénégal lii moo war a nekk Sénégal ñu amee président bu mel ni moom lu si des nag mooy ku am xalaat bu rafet indil ku am yéene bu rafet indil ku am jëf bu rafet indil ndaxte dañu war a tabax Sénégal ndaxte dañu war a defar Sénégal te dinañ ko def te duñu taxaw ndaxte bu ñu xoolee lii ñu kilifa yi jox muy dëkku jàmm muy dëkku paix muy dëkku prospérité muy dëkku xam-xam bo xamne ne ku nek dafa wara ñew taxaw tek kon yaakar naa ne tey ni nii bu jeunesse su Grand Dakar taxawé te d'ici peu di ngeen ko gis inshallah li ni ci gannaaw def nañ fi ben poste haute tension bo xamne ne poste bu gëna moderne la ndaxte bu ñuy défé suñu étude xol lu fi wara am yépp gis nañ né fi ak ay at dootuñ mëna jox courant lu doy monsieur le président nañu na ngeen taxaw. ngeen def fi poste bu ngeen xam ne post bu dëgër la poste bu haute tension mu ngi nii ci seen ginnaaw ngeen gis ko incha allah léegi travaux yi pare léegi ñëpp taxaw ñu ñëw war a taxaw incha allah def si loo xamante ne nii ñëpp dinañ ko jëriñoo di wax rek ne mënuñu terminer sans ñu remercier suñuy partenaire muy Vinci énergie ndax lu mu def yëpp di wax ne seen Senelec a ngi nii yéen ko moom yéen a ko war a jëriñoo et pour accompagner la jeunesse sénégalaise sous le leadership de son excellence monsieur le président de la république yal na yàlla sàmm Sénélec yal na yàlla sàmm Sénégal ñu ngi leen di gërëm. avant ngay dem avant ngay dem avant ngay dem ah. fu Coro Coro Salma Jigéen Jeer Saxa Salma Demba Malick Salma Demba Yaay Jam Jam Yaa Sara Mar yéeg yéeg yéeg kay dugg ba lay yaayam jox ko Yombu président yombu day kay dugg ba lay want. digal joon may jàngam ba dama la jàngam ba Monsieur le ministre, mon cher frère Ablaï ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique, Monsieur le ministre Amadouba, président d'honneur de LGB, Maître Ouad, honorable député à l'Assemblée nationale, Monsieur le sous-préfet de Grand Dakar, Monsieur Mamadou Mbakefal, monsieur Pape Mme Bitey directeur général de la Sénélec madame le maire Soham maire de la ville de Dakar monsieur Augustin Senghor président de la Fédération sénégalaise de football président de l'US Gorée et maire de la commune maire de la commune de Gorée et président de l'OS Gorée monsieur Seyer mon grand frère président de la Ligue sénégalaise de football. Mon frère Amadou président de l'ONCAV Amadou ñu le grand gërëm de la sant ndax ànd bi de monsieur Jean-Claude Valéry directeur régional de Vinci Sénégal. mon cher grand frère et père l'ancien député président du groupe parlementaire PDS monsieur Doudouat. mon cher père. El Mansour Paye, grand communicateur traditionnel. Ma soeur, Adjaratou Djaminatou Ba, présidente d'honneur de NGB. Messieurs, dames, chers collègues, conseils municipaux. Monsieur le Premier, agent maire, Monsieur Ndiagadien. Monsieur Madion Peng, Sidibé. honorable invité encore en et Je voudrais tout d'abord rendre hommage au Tout-Puissant de nous avoir permis d'être là aujourd'hui, 1er avril 2021, pour procéder à l'inauguration de cette infrastructure sportive, fruit d'une collaboration entre NGB, la commune de Bousquiserie et Sénélec Sénégal, que nous chemin parcouru par des personnalités de courant, beaucoup d'entre eux n'ont pas eu la chance d'être là avec nous. Ne pouvant pas les citer tous, je voudrais vous demander de bien vouloir me permettre d'en citer deux. L'un, du fait de sa posture de notable et de maire, et l'autre, en tant que précurseur du football dans, cette localité et fervent défenseur du terrain de Je veux parler des cieux Fodoubi Isagnas et Garan Kourbali. Que le plus puissant les accueille au paradis. Eux et tous ceux qui nous ont arrêtés à leur affection. Mesdames, Messieurs, pour en arriver à ce jour, il a fallu passer par beaucoup de dates. Et ces dates-là sont des dates décisives. premièrement, la signature par M. le Président de la République, son Excellence M. Macky Sall, du décret 2019 629 en date du 15 mai 2019. C'est l'occasion de magnifier la diligence avec laquelle les ministres des Finances et de l'Intérieur d'alors Amadouba et Alléluia, Ndiaye, ainsi que les directeurs généraux de la SICAP, Mamoudou Kassé, de l'Azerou, Ibrahim Ndiaye, ont donné suite aux instructions du président de la République. Une mention spéciale à Matarba, ministre des Sports, qui nous a accompagnés depuis le début de la réalisation de ce projet. Deuxièmement, la tenue d'un conseil municipal de la commune portant entre autres sur une autorisation donnée au maire de signer un protocole d'accord avec NGV pour la gestion et l'exploitation du terrain. Trois, La signature d'une convention de partenariat avec la Sénélec et la réalisation du complexe sportif proposé par NGV. Cette action nous a permis de réaliser un vieux rêve de l'ensemble des acteurs sportifs de la commune de Biscuiterie et de Grand Dakar. Je me rappelle les projet échangés entre le directeur de la CNR et le, premier adjoint au maire d'alors, M. Ndiadaguen. Monsieur le directeur général de la CNR, Mesdames, et Messieurs, tout ce processus a eu lieu grâce à la volonté du président de la République, M. Macky qui, pour le remercier, chers amis, chers frères, je vous invite

le ministre Amadou Ba l'a bien dit il te defe naa moom xam-xam ci loolu la mat terrain bi dañu wut lu jamono am lu ñu ñu ko am ñu bëgg jóg bëgg xeex nañu affaire bi xeex jaar leen procédure lu muy yàgg yàgg yàgg yàgg ak loo sonn sonn sonn sonn di ngeen ko mës am bés Abdoulaye Wade di ñëw

une grande mention, une spéciale au député général de la Sénélec pour cette collaboration franche. Un grand merci au directeur général de la CICAP, M. Mamoudou Kassé, pour son implication sans faille à la réalisation de ce projet. Merci et un grand merci au conseil municipal qui a permis cette collaboration tripartite commune de Biscuiterie, NGB, Sénélec. Madame, Messieurs, ce joyau nous permettra de mettre en œuvre une véritable politique sportive. Et comme vous le savez, vous en rendrez compte, certains travaux doivent vous permettre de finaliser le complexe sportif nécessaire et qui nécessite un appui financier. C'est la raison pour laquelle je voudrais solennellement demander au ministre du Sport, M. Matarba, au directeur général de la Sénélec, M. Pape Matembo ainsi qu'aux bonnes volontés, comme l'a dit si bien Monsieur le ministre des Finances, à Bonouba, de bien vouloir nous accompagner pour la finalisation de ce projet, de ce, projet et l'accompagnement de NGB pour l'amélioration de ses performances. Mesdames, et Messieurs, je vous remercie de votre intervention. liñu ñu muuroon ci plaque bi ba nga xamante ne kenn du xam turu complexe bi ñu nekk tey bi ñu ko liiree tur ba ñu fa gis mooy momadou gay mik nekk le trésorier. la ilaha illallah. sama ak sama sax Lamine Thiam. wakumata sombo jëri kol Abdoulaye Pathé Diassa jëre Biram Mbagnick Matar Ba wee président Macky nee na jërëjëf Matar Ba wee jeunesse bi nee na jërëjëf wax ma sa sombo ak jëri ma sa kólle Abdoulaye Bata Dia sa jire Birame Mbagnick Ablaye Walimata Xuma ay satal borom ne nekk li ci jaxaw wakkiluñ ci sombo Abdoulaye Doi Dia sa jaasa biram mbañik ralla biram mbañik utmaan biram mbañik biram mbañik sama masa daw jami sargar maxtar ba a cuga maram salbe ablaye wala ma doxuma yita taal borom leen ne kilisi jaxaaw président Macky nee jërëjëf waxuma sa sombo a sa golle Abdoulaye Pathé Diassa jile biram mbañik ñaasa biram mbañik duwaare biram mbañik doxi jàmm sargal le mawlaay président la la mon cher ami et frère monsieur le sous-préfet de Grand Dakar madame le maire de la ville de Dakar. Monsieur le maire de la commune de Biscuterie, mon cher ami et frère Gibril Wad, Monsieur le président de la Fédération sénégalaise de football, vice-président de la CAF, maître Augustin Senghor, Monsieur le directeur général de la Sénélec, mon cher ami et frère Pape Demba Bitey, Monsieur le directeur général de Vinci Sénégal, Monsieur le directeur général de la SICAP, Monsieur le président de la Ligue professionnelle de football, mon cher ami Amadou Khan, président du mouvement Nawetan, Longka. Monsieur le Président de la Ligue de football de Djurbel, Madame Djei de Saloum Voyage, cher doyen Doudouad, honorable député Djibriloir, je voudrais saluer personnellement notre doyen et notre père, Elage Mansour Mbaye et prier pour lui pour qu'il ait une longue vie et une santé de fer. Saluer Elage Mansour Mbaye, c'est saluer l'ensemble des communicateurs traditionnels du Sénégal. Mais je n'oublie pas la presse sportive. Chers amis sportifs, chers invités, chers population de Biscuiterie, chère population de Grand Dakar. La cérémonie qui nous réunit cet après-midi est une belle initiative, un bel exemple de partenariat entre une collectivité territoriale, une association sportive et une société nationale qu'il convient de magnifier et de marquer d'une pierre toute blanche car traduisant aussi bien dans la forme, dans l'approche et dans la mise en œuvre quelques-unes des orientations majeures de son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal. En matière d'organisation, d'encadrement, de gestion et d'accompagnement des activités physiques sportives dans notre pays. En effet, le protocole d'accord transactionnel entre la Sénélec et ses partenaires, NGB et la commune de Biscuterie, qui a donné naissance à ce projet, procède d'un litige qui a été efficacement renégocié et revu à l'aune et à la lumière de la politique du président de la République dans l'intérêt bien compris des deux parties. Un exemple de collaboration et de synergie à soutenir à accompagner et qui s'ajoute aux actions de l'État et de ses démembrements en matière de réalisation d'infrastructures sportives. Mon cher ami, monsieur le ministre Amadouba, ministre des Finances d'alors, je voudrais te remercier et te féliciter pour votre engagement, mais pour votre efficacité, ce qui nous a permis aujourd'hui d'être là, parce que le chef de l'État vous avait donné les instructions nécessaires. Au Sénégal, la politique de développement du sport érigée en mission de service public repose sur deux grands principes. D'une part, l'État qui délègue la gestion et l'organisation du sport à des structures associatives, les fédérations et les groupements sportifs. Et d'autre part, l'instauration de la décentralisation par un transfert de compétences aux collectivités territoriales dans le secteur du sport une réforme majeure qui a impacté favorablement la gouvernance du sport dans notre pays. C'est sur la base de ces fondamentaux qu'il convient d'apprécier les bons résultats sportifs obtenus notamment ces dernières années et qui ne cessent de se consolider et de s'élargir. C'est pourquoi, doyen Elage Mansour Mbaye, je voudrais vous dire que toutes les corrections vont être apportées parce que nous n'avons qu'un seul objectif, c'est la Coupe d'Afrique des Nations et rentrer avec ce trophée. Et ce n'est point un hasard si notre football, première discipline sportive au plan national, est aussi la première en Afrique sur l'indice de classement de la CAF, de la FIFA. Cependant, ces performances sportives, quoique importantes, doivent être lues et appréciées sous l'angle de l'option résolue du président Macky Sall de doter le pays en infrastructures sportives hein, de dernière génération et en nombre suffisant. C'est ce qui explique la réalisation, entre autres, l'arène nationale, le Dakar Arena et très prochainement le stade du Sénégal à Djamnyadjo. Mais ces grandes infrastructures sportives destinées aux grandes organisations nationales et les compétitions internationales seraient certainement moins opportunes et moins efficaces s'il n'était pas complété et soutenu par des réalisations de moindre envergure, mais tout aussi nécessaires et efficaces pour promouvoir une pratique sportive structurée et de masse sur l'étendue du territoire national. C'est dans ce cadre qu'il importe d'appréhender et de soutenir la réalisation de ce grand projet entre la commune de Biscuiterie et la Sénélec et ses partenaires, mais également de Niar Italie, et qui comporte, outre ses contreparties financières, au profit de la commune, la construction d'un mur de clôture, l'aménagement d'une pelouse en synthétique de 5000 m2, norme FIFA, la mise en place d'un éclairage sportif adapté. Mesdames et messieurs, chers invités, le sport est certes divertissement et distraction, mais le sport est d'abord et avant tout éducation, formation, participation au développement économique et social du pays. Ces enjeux économiques et sociaux sont si importants et si immenses qu'ils ne peuvent échapper à la vigilance d'un homme d'État averti de la trempe et de la clairvoyance du président Macky Sall. Quand on arrive, ou bien quand arrive le moment de proposer une offre politique à ses concitoyens, c'est ici le lieu de rappeler et de marteler avec force que le sport est une école. Il enseigne l'équité, le travail d'équipe, l'égalité, la discipline et l'inclusion. Le sport, c'est aussi le culte de l'effort et de l'abnégation, de la persévérance et du respect des règles et de l'éthique. Le sport ne sert pas seulement à fabriquer des champions et des stars, c'est aussi un puissant instrument de transformation des individus, des personnes, des groupes et des lieux de vie c'est pourquoi ce projet que nous avons l'honneur et le privilège d'inaugurer au nom du chef de l'État, le président Macky Sall, constitue assurément une grande opportunité pour le club de la commune de Biscuterie, pour l'amélioration notamment de ses conditions de préparation en direction des compétitions sportives. Ce projet doit aussi servir de cadre d'expression aux jeunes sportifs et aux autres pratiquants de la commune, aux ASC, aux établissements scolaires de la localité. En somme, nous passons et souhaitons que cet ouvrage, un véritable joyau, va contribuer à booster et à stimuler la pratique du sport dans un cadre agréable et conforme aux meilleurs standards en la matière. Avant de terminer, je voudrais dire à mon cher ami et grand frère le ministre Amadouba, vous l'avez rappelé. Le chef de l'État nous a donné les instructions pour que Ngelew dispose d'un gazon synthétique, pour que la Padoua aussi dispose d'un SAD Cameroun. Et dans un mois maximum, nous allons réceptionner le stade des parcelles assainies. Ensuite, le stade d'Angor et de Yoff. Bien évidemment, tous ces efforts vont être complétés par la coopération avec la République populaire de Chine pour la reprise de Léopold Senghor, la reprise avec la FIFA de Demba Diop, mais aussi le grand stade qui est là à Djamnyadjo. On aura en tout cas fait beaucoup d'efforts pour régler le problème des infrastructures sportives dans la région de Dakar. Avant de terminer, je voudrais renouveler mes félicitations et mes encouragements à mon frère et ami l'excellent directeur général de la Sénélec, M. Pape Dambabitei, et à l'ensemble de ses collaborateurs pour leur perspicacité, leur esprit d'ouverture et leur engagement à toute épreuve aux côtés de M. le Président Macky Sall, Président de la République. Vous avez montré, Monsieur le Directeur Général, encore une fois, s'il en était besoin, que la Sénélec est une entreprise citoyenne qui met en œuvre et en première ligne, outre ses performances techniques, l'intérêt des populations. Et cette option s'est confortablement consolidée depuis votre arrivée à la tête de la Société nationale d'électricité. Dans le même ordre, je voudrais féliciter avec la même chaleur le directeur général de la SICA, mon frère et ami Momodou Kassé et l'ensemble de ses collaborateurs. Si ce projet a connu cet aboutissement heureux, on le doit aussi en partie à votre entreprise qui a fait preuve de compréhension et de collaboration. Je félicite également et très chaleureusement mon cher ami, un homme très engagé, un homme de valeur, un homme qui ne se connaît que la vérité, monsieur le maire de Biscuiterie, mon cher ami Djibril Wad et tous ses collaborateurs. Mais saluer Djibril Wad, c'est saluer aussi mon véritable ami Ahmed Diop, je voudrais lui tirer un chapeau. Parce que mon engagement aux côtés de Djibri pour ce terrain, en tout cas, une grande partie dépend de mon cher ami Ahmad Diop, qui ne cessait de chanter tous les jours pour que, effectivement, NGB puisse disposer de ce, de ce terrain. Vous avez su, monsieur le maire, avec intelligence et élégance, et beaucoup de courtoisie, conduire ce projet à terme et à bon port, sans bruit, sans contradiction majeure et dans le respect strict des clauses du contrat. Et votre invitation va être transmise au chef de l'État, le président Macky Sall, pour l'inauguration de cette centrale. Je souhaite que votre exemple fasse tache d'huile et que les autres maires des collectivités territoriales, à commencer par celui de Fatik, Matarba, s'en inspirent c'est un cas d'école à méditer et à multiplier. Enfin, pour terminer, j'ai une pensée pieuse pour la mémoire du défunt maire, le doyen Doudou Issagnas, qui a paraffé le contrat et que nous honorons tous par cette belle et magnifique réalisation. Monsieur le parrain Momodou Gueye je voudrais aussi vous féliciter. C'est un mérite quand votre nom a été prononcé, j'ai lu à travers ces populations qui ont sauté et qui ont manifesté leur joie que vous étiez un fils adoré de Biscuiterie. Je vous réitère en tout cas à vous tous ma disponibilité, ma satisfaction et celle du gouvernement du Sénégal et particulièrement celle de M. le Président de la République, son Excellence Macky Merci à toutes et à tous de votre aimable attention. Come on. man ci kaw lañ man dama rek gis len ba paré fo tourner Dakar instant ngay gis. mais Dakar instant ci kaw kanam rek. Ah, Dakar gis caméra bi ni trop ba mënuma bu baax di Dakar dama suivre si page page YouTube dal Dakar instant bo xolé sen tour rek day chaque instant c'est le bonheur. monsieur le maire loo wax ci Dakar instant. waaw c'est une première mais ni ma Dakar instant dafay prouver ne ko Dakar instant ci kanam la jëm inshallah. allah. gars ñu ngi koy suivre Dakar instant lan leen laay wax na gars yi dem abonné loolu bëgg si actualité ñëw leen si Dakar instant. sa liggéey rafet na trop macha allah. Mbacke loo wax ci waa Dakar instant. waaw Dakar instant nag moom ñoom dañoo xew ndax bañ naa ko chaque jour bu ma xee bu information yi may soxla yëpp ñoo ma koy jox muy dugg ci YouTube bi da ko xool rek. looy wax ci Dakar instant. mais jàmm. loo wax ci Dakar instant. Dakar instant dafi nekkal Baye Fall yi. dafi nekkal Baye Fall yi dañu war a Dakar instant. Dakar Twitter. Dakar instant. Dakar instant à instant.